asalaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax wéy leen di abonné te di activer cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal ngeen bokk ci ñu koy njëkk a gis euh, ñu ñëw ba léegi ci euh, Sénégal Côte d'Ivoire cas bi moom dañ ko topp ba mu jeex tàkk parce que bu lu ñu dal ci match bi dafa metti trop match boo xamante ne amoon nañ tous les arguments pour gagner ko te te loolu lañ def sax ku ne xam ne Sénégal joué na match bi mu war gaynde yi def nañ li waroon def lépp mais malheureusement. donc arbitre bi CAF indi franchement il n'était pas au niveau de la compétition franchement euh, match bu am importance comme ça nga jox arbitre bo xamantene 31 ans la am amul ben expérience bi franchement wa CAF je suis désolé mais du yoon te ñu bari ñi ci wax né arbitre bi dañ ko corrompre ñii naan mm, euh, dañ ko corrompre en tout cas lu ci mënti am euh doy na waar quoi Sénégal yàgg naa dund injustice yu mel nii yàgg nañ ñoo xeex ci yenn genre compétition yu mel nii mais à chaque fois dañ dañuy ñëwaat relevé waat demaat ca kanam incha allah te ñooy demaat waaw ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe seen wàllu àdduna ñi bëgg bayra muy góor wala jigéen euh, ñi ca jàppale wala Lamine wala sëriñ Mouhamed Diakhaté 78 282 44 yaa ngeen jëf.